di kontaan aussi tamit euh, seen taxawaay euh, wax deug yalla mu nek mu nek lo xamanteni euh luñu rafetlu la parce que mën nañu ni tey euh li nga xamanteni moy liguey biñ doon def pour euh, pompe li nga xam moy dekk bi euh ni ñun ci ak di gërem ki nga xamanteni moy adjudant Balde di rafetlu ñom tam aussi tamit sen taxaway ak équipe bi mu andal yépp parce que mën ni tey jii bu bu yembé rek ñom ñoo ci japp di gërem aussi tamit ñi nga xamanteni moy bureau Reptel bi yépp Euh, secrétaire général euh, di nuyu aussi ki nga xamanteni moy Babacar Fall euh, moy trésorier bi euh, Cheikh Tidiane Ndiaye euh, nga xamante ni moom mooy yor sage ki nga xamanteni moy Sa gay mom moy yor relation extérieure donc ñu leen di gërëm ñom ñëpp di leen sante ci liggéey bi nga xamanteni and nañ ci ak association REPTEL bi yëpp donc ñëw fi di def liggéey bi nga xamanteni moy mooy liggéey bu mucc ay bi nga xam ñi ngi koy def pour jappalé li nga xamanteni mom moy Covid 19 bi. mu jóge biir réew mi jóge ci biir Tivaouane ñaan yàlla te ji fi mu yam ñu ci jot a gis ñu bañ koo gisati loolu moom moo ñu waral suñu combat bi ñuy def pour di jóg pour jàppale waa Tivaouane si am nañu ay partenaires ñu suñuy partenaire mooy suñuy membre mooy suñu ñooy suñuy partenaire ndax suñuy membre ñoom ñoo génnee li ñu am jël ko teg ko ci table bi lépp lu ñu mën a dépenser rek suñuy membre ko génnee donc association Redpel li ñu am ni amu ci kenn ko xamanteni tay ji japp lañ ci li ñi liggéey bi ñi def 3000 masque yi ñu defoon 1000 masque yi génn ba tay ji commencé nañ ko ki euh, commencé nañ ko joxe tay ji rek joxe nañ ci ay masque bari kon tay ji 3000 masque yoyu aussi tamit génn na lepp genn parce que tay genn nañ tay ji 1080 masque donc di jël nañ ko ba paqueté ko commencé ko diko ko joxe waat ci bi dëkk bi kon lool ñi def lool yépp euh membre Reptel yi. ñoom ñoo ñëw génne kenn ku ci nekk la nga am ñu teg ko ci table bi ñu ñëw jël nekk ci combat bi nga xamante ni moom mooy xeex Covid 19 bi ci biir Tivaouane. Euh, macha allah li nga laaj bi laaj bu am solo nga laaj euh, pour indi la benn firnde rek euh, mooy bi ñu demee ba déggante ji am na loo xamante ni dugg na biir Tivaouane defe naa ni amul ku yeewoo biir Tivaouane te sa xel ti bañ ko déggee ñëpp tiit kon donc su fekkente ni dégg nañu lu ñu mel ñëpp tiit. kon ñuy def mooy que ni ñaan yàlla fañ ko déggee ca la mu yemoon mu yam ci loolu ñu continuer ñëpp mën a génnaat nekkaat ci dëkk bi ñu dem doxi suñu soxla ñu war a liggéey liggéey activités yi doxaat ñëpp nekkaat ci jàmm donc wax dëgg yàlla ñun tey ji li ñu mën a wax mooy que ni li ñuy xeex c'est normal ñu xeex ko parce que war nañoo xeex li nga xamante ni mooy Covid 19 bi mu génn ci biir réew mi génn ci biir àdduna bi rawatina ak Tivaouane gi nga xamante ni fi waa Tivaouane di leen gërëm di leen euh, di wax ni tam aussi tamit euh, kenn ku ci nekk na nga génn xeex def def ci combat bi dugg ci képp koo xamante yàlla may na la nga mën cee euh, sóobu nañ ci sóobu ñoo jege waa service d'hygiène donc ñu def li ñu def ku mën a defar ay masque nga defar ay masque am nañ ay membre yoo xamante ni ñi ngi ci biir association bi ñi ngi xamante ñi ci association bi koo xamante ne membre la ci association bi di ak ñun li liggéey niñ nekk ci association bi defar ay 200 ñu defar ay 150 def ay 50 masques di ko maye ci biir dëkk bi loolu rek mën nañu ni lu rëy la ci ñun parce que loolu tey su amee rek c'est parce que ànd bi ñu ànd moo te ànd bi nag du kenn ku dul waa association Rappel parce que ginnaaw yàlla ak yonent bi di fi am lépp ñoom la waaw lépp ñoom la c'est-à-dire ci kenn koo xamante te tey jii jàppale nañu soutenir nañu ci liggéey bi nga xamante combat bi nga xamante ni ñu ngi koy xeex ci Covid 19 bi. lépp membre Reptel yi ont ñoo def seen xaalis def seen ñu defal bi di tam Balde brigade spéciale de bu comme ni nga dit, ici nous suba au niveau du quartier Founi, plus précisément bon ensuite pour d'abord faire euh, def euh, VAD c'est suñu langage mais nous ne visite à domicile maanaam dem ci kër yi. watan ak wa kër ñi waxtaan ak koñ bi ak euh, wa quartier bi d'abord pour apaiser seen xel dalal seen xel parce que bon bo déggé ñu ne dara xew na fii rek da ngay xawatit mais ñun dañ fa démon tay pour waxtan ak wa koñ ba manam juste dalal seen xel xamal leen d'abord d'accord li ko mais nañ ko santé yalla d'abord parce que natou la mais en plus aussi nañ jël suñuy motukaay rek def des gestes de barrière port de masque bi léegi yalla def na ne c'est obligatoire kilifa kilifa yi ci réew mi def nañ décret bi donc lolu amna solo et en plus que léegi ñun ñom aussi ñu gëna farlo ci si les gestes barrières comme ni mu ko waxee raxasul loxoy wañi safanto yi jege wanto bi ñu respecté distance bi lolu rek lañ dana wax tay pour ñu jéem gëna continuer lolu et ensuite moytu génn bo xamantene amul sens xalé ñu tii parce que heure bi ni xalé yaangi kër ga benn xale jàngootul donc bo xoolee xale amul waral faral di génn si biti dañoo war a nekk si biir kër ñi mag ñi ñoo war génn te mag aussi nañu génn farata Kui dem marse. na dem dugg lu muy dugg ñibbisi te bu tak tek si woom na raxasu ndox ak sabu papa dem na liggéey wachina bunyi bu ñuy na raxasu ndox ak sabu bo xoolee ñooñu ñu ëpp ko lu ñuy génn ci kër ñi loolu mo taxoon tey ñu dugg ci quartier bobu waxtaan ak ñoom gañ na leen ñaax si Euh, euh, mesure d'hygiène pour ñu gañ ko defar loolu xam nga aussi bu loolu bu amee ñoom dina dalal seen xel et ensuite tey ci guddi gi ñun bon ñu ngi gërëm waa Reptel d'abord parce que ku la wa ku la fekk si sa liggéey danga koy gërëm man maa ngi rafetlu seen seen vraiment seen seen geste seen teewaay ak seen acte bu ñu def parce que vraiment nit ki moom bu nekkee ci dëkk rek gis ne li amna dara ci dëkk bi moom amna na li mu war a bi rek da ko war def te kooku bu ko defee da nga ko war a sant yàlla da nga ko war a gërëm ñun aussi lii dafa nekkoon geste boo xamante ne kii euh, ñu koy waxee activité boo xamante ne dañ ko waroon defaat maanaam defoon nañ ko dañ ko waroon defaat far nag tombe ñoom aussi ñu ñëw si euh, diggante boobu ñu expliqué ñu ne amul problème maanaam fu mu toll nii boo xoolee ñaari action yu daje la woon brigade bi da ko waroon a def REPTEL ñëw. Propose ñu ko ñu ne leen acca ñu ngi ci yoon ba manam rafetal dañu fekk ci yoon ba dañuy def ñu and ak ñoom mo dama le ma ni di gërëm di leen sant ci loolu amna ñeneen ñoo xamne mënon nañ ko def te defuñu ko wala ñu mënon ñu ko bañ def defuñu ko motax ma leen ni ma leen di gërëm et en plus aussi dafa am ay xalé yo xamne ñu ngi ci dëkk bi di and ak ñun di pompe parce que effect bi du effectif brigade bi rek amna ay ñu ñuy wax volontaire manam bo xolé jamono gamu ñu doon and di pompe ñoñu tamit ay xalé yu góor si dëkk bi la xeyna amuñu kay ñu mëna joxé mais am nañ seen i doole ma leen di gëreum aussi di leen sant parce que dañ ko def ngir seeni walu wàllum ñun dañu ñëw ñu ne ñu ne noonu dem suñu liggéey la ñun ñun mom ñu ñu jox ñu dara ñak ñu jox dara mom ñun mom fi la ñu wara taxaw mais ñom loolu mëna nañ ci baña fekk mëna ñu tok parce que heure bi ni comme limi wax rek ngi préparer wu koor mëna nañu dok seen kër yi dab seen njàmbur lii liggéey service d'hygiène la comme xam nañ ne aussi ñom dañ dañuy ànd ak ñoom si jamonoy gàmm gis na ne ah, wax dëgg yàlla ñoom tamit fii la ñu mën a xeexee corona bi amal nañu njëriñ ñu ñëw ànd ak ñun ñu dem ñu leen di vraiment remercier si seen geste parce que li ma la wax rek yombul nga nga am pas-pas wala nga am xalaat bu mel noonu nga def ko kon kooku nag bu defee loolu na da nga koy da koy gërëm di ko sant léegi ah tey moom def nañ marché bu ñuy wax euh, marché commercial suba dañuy continuer activité bi. manam amna suñu nu ñuy wax itinéraire bu ñu ciblé dañuy continuer marché Kër Matar après ñu dem gare routière non def sur le faux bu ci si def euh, des services lu melni police gendarmerie eaux et forêt sapeur pompier yooyu ñu mën leen ci walé et ensuite ñu xol lieu yo xamante comme marché ndaw yi ci biir dëkk bi buñ ko ko mënee defaale ñu defaale ko en tout cas de façon ñun fu mu toll nii xees bi encore manam dañoo reprendre à zéro comme nuñ ñu doon def fu mu toll nii daal ñu ngi ci te en plus que. comme li ma wax sank rek brigade bi brigade départementale la ñu ngi ci département bi fani ñu ngi won euh, Boy Jogo xonku yo dara khodous ba Morolan lolu yëpp dañ fay jaarat bu ñu may euh, possibilité dañ fay del wat defaat ko continuer wat activité de façon dal ñun nous sommes disponibles à tout le monde ñi am xalaat wala xel ni wa Reptel ñun ñu ngi ni taxaw disponible en plus aussi bon ñu ñu ñu gëna a aussi ñu gërëm surtout suñu médecin chef du district parce que tay jii nii suñu auto dafa amone problème mo ma ñëwee ma expliqué ko mu ne ma amul problème même sa auto bu baaxoon sa bu la neexoon da nga nan auto bi la bëgg yobbu do ma la ci wax dara ni la ma joxé caabi ji ma ñëw jël suñu chauffeur ñu dem liggéey koku aussi ku disponible mën nañ ko ñu ngi koy sante di ko gërëm parce que vraiment mom tamit xeex bi bam bu mu commencé ba légui chaque jour loo wax rek mu ne la ah, service d'hygiène lii service d'hygiène lii moom du déplacé wu sax le plus souvent te àndul ak ñun hmm. donc nag boo xoolee équipe la war a doon moom mu ngi respecté équipe boobu. Hmm. ñu ngi koy gërëm di ko centré si si si gestes yooyu aussi. produit bi c'est pas produit bi c'est pas nocif c'est un produit désinfectant te boo xoolee sax sànq boo xoolee bu ñuy démarré loolu lañ doon waxtaan jarul ñuy laal ñoom seen loxo bu ñu laal miir bu ñu laal dara. parce que germe bi xamoo fan la nekk virus bi xamoo fan la nekk mun na am ngi si miir donte sol nga gant wala protéger nga wóor bu laal miir bu la produit kii bi euh, produit bi mooy jiitu si fi nga nekk nga ànd ak moom. bii du comme par euh, kii insecticide yoo xamante ne da ngay pomper di reculer nga bañ mu kii la bii moom bu la neexee li lu ñu recommander nga pomper pare avancer ak moom. maanaam fi nga teg sa tànk na fekk produit bi jaar na fa war ba nga teg ko boo xoolee ba donc du fa jëm jëm rek jàmmoor gi nekkee day fekk mu dee ba pare yow nga doog a dugg noonu la ñuy def lii désinfectant la amul benn gàllankoor si kii bi si wàllu wérgu yaram. baax na kon ñu ngi lay merci beaucoup jërë ngeen jëf.